Satan. jaale ki nga xam ne bàyyi ko na fi tey lépp Serigne Touba taxawal fi Serigne Touba samp fi mbirum Serigne Touba def si murit yi murit yi dignité ak personnalité ak li nga xam ne kenn su wax bare du moom. Seex Ablaye Fall Chérif Abdourahmane Fall Tilala yal na ko yàlla yërëm dee ko bette mais yal na ko yàlla yërëm man sama xarita dama daan dem këram toog ñuy waxtaan mu doon xaritu président Macky Sall ma xam ci dara lu ne defal lu ne defal na ko Macky Sall lu ne nag laa la wax campagne bi otoom la taal dem di ndar partout fu président dem président day ñëw rek fekk mu taxaw mu jël parole di wax it jàppale ko ci zahir jàppale ko ci baatin bëggëloon boppam le président Macky Sall yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla yërëm dund doon taalibe sëñ Touba gëmul woon lu sëñ Touba yàlla na ko sëñ Touba teer ci xam naa ne dina ko teertu ndax Porokhane ci yoon wala nekkoon. jërëjëf El euh, Hadj Gaston ci loolu rek la ñuy tëjee muy Cheikh Abdourahmane Fall Tilala euh, ci sama tur ak waa Allo Dakar yëpp ci euh, li nga xam ne mooy kilifa gi ñi ngi koy jaal àdduna bi yëpp di ko ñaanal fa mu jëm yàlla na dajee ak yërmande ak Serigne subaa ak Serigne Salim mi mu doon liggéeyal. mu doon nit ku baax. comme murit bu nekk kenn ku nekk amoon lu dul la nga am te ñun Sëñ rek lañu am loolu ñu fi ak it dikkoon doon.